te itam mënees naa wax ne daanaka turam woowee di as-saalih nga xamante ni Serigne Touba bi mu gënee jamono moo bind as-saaliha jox ko euh, kenn ci mag ñi Serigne Mouhamadul Amine Diop ne ko euh, nga tuddee ko ko dafa mel ne turam woowee dafa jëloon nag doon ko dundee maanaam maanaam turam woowee dafa feeñ ci ay jëfam feeñ ci ay waxam feeñ ci itam lépp loo xamante ni aw doxinam la. ni nga ko waxee itam muy mag ñi nga xam ne ñoo jamono teeg Serigne Touba kenn ku nekk mu xool la nga xam ne moo nga gën a ràññeeku ci lu baax donte ne lépp lu baax la mu jël ko féete woo ko. loolu tax ba mu wàccee liggéey sëriñ Abdourahman ibnu Cheikh Abdoul Khoudous ca Daaru Muxti defal ko marché bu am solo waxoon ne xat jamaa shariata maa al kamali al haqiqati bi tawazuni xat ohina daal di wax ne busoo bi yu sharia sëriñ Saaliw busoo bi yu sharia fii tafaadin waaye wa ibrahimu fall fii zal jiili fii naa dégg nga loolu mu wax yu sharia waaye wa ibrahimu fall fii zal jiili fii naa te adduna ku fi am fanweeri at yoo fàttaliku li fi xew lu mu la defati yow la neex adduna wan na lu tax nu war koo teg fi suuf fii nu toog tey jii enceinte bi mën nañu un kilomètre carré bii wër fii yëpp mboolem kër yi ñu ko tabaxoon ba mel ni nekkatuñu fi waaye nag boo dee xool adduna ci xumb yi xumb-xumb yi ak manifestation yi ak mbooloo yi ak julli yi ak jàkka yi da ngay defee ni adduna jeexul waaye ku xool armeel yi ni mu mel xool ñi fi tëdd xool dëkk bi ñi nga fi xamoon fukki at ci ginnaaw wala ñaar fukki at ci ginnaaw te kenn nekkatu fi war a xam ne adduna jeex na te àdduna ñi fi gën dem nañu li fi gën jeex na dëgg la ñu baax des na fi de ñu baax des na fi de ndax li feeg yàlla dina mu jamono di am ñu yor flan boobu sëñ tubaab bi di fi am loolu amul sikk waaye nag ñi gënoon ci bindee fi daal dem nañu kon nag ñi cees war nañoo bàyyi xel loolu bu baax te li ñu fi liggéey ñu bañ koo yàq xam naa ni dolli ci dolli ci lu ni toll lu war a mën a nekk la wala lu ko ëpp sax ndax sëñ tubaa ko wax ko dig moo fustu wa ayaami isdarat umuusi li sëñ waa wax ni salli alal mu addabi zil xurmatil mu addibi xayri rasuli wa nabi wa saxbi salimi boo gisee sëñ Saaliw gis mag mu yaru mag mu teey mag mu bari kersa kersa li mu ci am dafa bari kersa nagu bëtam du kenn ci teg bët lu do lu gone tuuti tuuti tuuti jox na la war ma mus musta weddi kuy nar mus musta miim loolu doon ne ko ci baayam musta weddi lépp lu luñ ko mës a tuumaal itam ni jàmbaar ja borom Tuubaa rek la meloon mooy day dem rek ba ñu xam ne du moom waxtu wu nekk nag mi ngi waat tey wàcc ndax dafa ma soo wax ni lu dul lislaam du ak taalibe aw ma ca defar aw ma ca yàqu doonu ma ca dara ku ne xam na ni sëñ Saaliw liñ sëñ Tuubaa ni xaadal waraa bil adabi dañ ko daan jàng muy womat bindee fi ci ay teggin waaye moo na ko tojal ba nu xam ko ndekete ku bëgg a ànd ak nit ñi ci teggin da ngay na da ngay nangu ñu cautionné la moo tax mu bu ngeen ma jiitalee nii ma sëñ Tuubaa jiitalee day su may di leen geesu rek su may doxi di leen geesu rek su ma demee ba séenutuma leen ma taxaw nég génn su ma séenoo séenu séenu ma leen ma dëpp daje yéen su ngeen jiitoo ma topp ci seen kaw waaye duñ taqali ko loolu mooy xaadal wara bil adabi keroog laa dégg bayit woowu di jëmm joo xam ne jii loolu ñu laa fos force mooy Serigne Saliou dañuy tekk te lépp di yëngu ba gëm sëñ Touba nag am na sama benn xaritu naar danoo ma sa daje kër suñu ko sa assuloo nii waxtaan ba yàgg mu ne ma man sëñ Saliou Mbacké xamoon naa doomi sëñ tubaa yu bari waaye ni ma impressionné jën doomi sëñ tubaa mosuma ne impressionné ni sama xarit la naar bi nag boo gisee naar bu mag la ku rafet la ni mu saxe kawar ak boo gisee xam ne shérif la mu ne dafa am bis ma ñëw fii ci këram gi fekk mu woor waaye mi ngi feebar tawat waaye mi ngi woor ma dikk ni ko ah Mbàkke dafa mel ni da woor de fekk muy ci bisi sunan yi nga xam dañ ko ne ko sax koor Ramadan mu ne ko waaw damaa woor nee naar bi nag ma ni ma ni ko ah Mbàkke xale yu jigéen ci mbedd mi dañoo woor sa dongo yi dañoo woor yow li la yàlla def defloo yow rek yaa ko man ndaxte mag nga sa doole bariwul bëriwoo ak lekk dencal sa koor gi ndax yow kat bu la koor wàññee dara danga nga nu tooñ ndax li nu séenu ci yow <laughs> du woor nee na ca suba sa sëñ Saaliw dog ngir màggal sama kàddu gi waaye daal di may mere itam xoolee équilibre boobu xam na ni wax naa ko de waaye waaye moom jëmmi sëñ Tuubaa da cee amul sago teggi ni ci moom ci jëmmam ji nga koy xam